actualité bi comme ni mu ko duggee ci nuyoo bi rek moom mooy arrestation bi nga xamante ne nammeeku nañ ko ci ki nga xamante ne c'est un républicain bokkoon ci ñi doon défendre APR waaye bokkoon ci APR euh, tey ñu xëy gis ni euh, ginnaaw émission bi nga xamante ne def na ko muy ultimatum bu amoon bi am foofu ca euh, seen web ñu daal di koy interprète daal di koy woo ki ko woo nag du kenn ku dul ki nga xamante ne moom mooy procureur ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy suñu première institution muy ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence donc euh, Samba euh, républicain nga républicain daal dinay am problème ci ay propos yoo xamante ne yëkkati na ko ñu jàpp ne offense à au première euh, au au chef de l'État la donc ba tax na jural na ko arrestation yow noo jàngatee loolu le mooy kàddu yu mu yëkkati ak arrestation bi niñ ko doxalee. waaw di koy naqarlu je suis vraiment meurtri. Hmm. par les tenants de ce pouvoir nga xamné tay tey dañuy mboy mboy mhm. liñ fi wax ci lu ñaaw ci ay kilifa mhm. ko ci ay kilifa ko ci ay kilifa ko ci autorité ci magistrat bi nga même président de la république actuellement mhm. tey amon na ko ci wax magistrat muy premier ministre aussi am lu ma Maham dialogue

ànd mm-hmm. ak beneen militant boobu nga xam dañ koo jàppoon ñu ne xaw dafa am problème mental. Mm-hmm. nga xam Ousmane Sonko moo taxaw publiquement ne xaw ma procureur je ne sais pas ministre bi daf ma envoyé euh, vidéo je ne sais pas. Mm-hmm. mais ana ñooñu ñëpp ana Guy Marius Sagna bi nga xam dafa assemblée nationale di Saga président Macky Sall la première institution toog ci biir institution di saaga. mais loolu yëpp nag tout ce conglomérat de faits ñoom ñu ko doon combattre. Mmh. que la justice doit être libre la justice doit être indépendante article quatre-vingt dañ ko war a arrêté. Mmh. yow soo doon wax ne di dañ ko war a arrêté soo fa yeggee dindi ko. wala mmh. nit ki wax nga may ko liberté mu wax ko. parce que nag gémmiñ su waxul dëgg wax ay fenn. ñun nañ am la vérité. ils ont promis aux Sénégalais mon ici ils ne l'ont pas réalisé. mais on aura on sera là et on aura l'audace de leur dire que li ngeen doon wax jëfewu leen ko. Mm-hmm. appel à candidature jëfewuñ ko. Mm-hmm. dina ñëw ci loolu mais tey kàddu yi kii yëkkati nammeeku nañ ne que kii di Guy Marius Sagna yëkkati yoon na lu ko lu ko raw sax teg ko ci ndondoo président Macky Sall waaye premier ministre aussi tuumaloon na fi ki nga xamante ne ba ne dafa dafa dafa fen fenal boppam fenal sénégalais muy euh, Maham Diallo bu mu taxawee foofu ca Kër Massar donc tey ñoom loolu ñu amoon audace def ko te dara fekku leen ci tey bu ñu gisee ku koy fe ku koy def est-ce que laajul tolérance. waaw même pas de tolérance mais ñoom ci seen jëm bopp gis nga say boo jiwee loo ji ba mu mag mhm. récolte ba sa jotee na nga ko assumer mhm. ñoom ñoo jàngal Sénégal politique saaga ñoom ñoo jàngal Sénégal politique manque d'éthique ñoom ñoo jàngal Sénégal politique taal lakk saaga xaste manipuler inventer ay nit yoo xamante ne amul mhm. ci ñoom la la yeyoo mm. ñoom ñoo ko Sénégalais yi nous sommes des républicains. Nous sommes des am ay ay ay soxna. am ay doom élèves étudiants nous sommes des républicains. ñu sommes des am ay des républicains. bu may wax républicains. Nous nous donc Warna Rousse, wax wax ju wax nous wax ju wu di koy ci nit ñu di waxoo dëgg loolu on aura l'audace de le dire lépp luñ fi promettre suñ ko deful dañ ciy dut baaraam ne yéen ko waxoon defu leen ko loolu kon ci bëgg a des centaines de millions c'est des milliards de prisons emprisonner tous les Sénégalais et plus de vertu parce que doit wax dëgg dëgg rek la gor nag ñun ay doomi gor lañ fi ay ragal nekku fi amel Suzanne Camara nañ ko baye mu libre parce que waxu fi lu Azoura Fall waxul waxu fi yenen Pastef luñ waxul saaga nañ fi ay yaay jambour saaga nañ fi ay papa yi jàmbur wax nañ fi ay nit wax yu teginewul mais Maham Maham Diallo kalifa la am ay dom am njaboot nek nek nek autorité. Mhm. nek magistrat am lu ko lu lu lu ko lu ko lu ko lu ko protégé te pourtant taxaw nañ fi dikoy saga le li koy may yëg ni mën na xeteme donc tay nañ am élégance. Mhm. intimidation bi nag san marché marchera pas. Hmm. gis nga seen intimidation bi. Mhm. du dox fii nen du fi bondee muus du fi naanee ñeex suñu waree wax dëgg dañ koy wax muy neex muy naqari ñoom dañ koy bugg di dégg ñuy ronger seen xol te dañ koy bëgg di def. saaga moom muy giimari Marius muy Ousmane Sonko muy muy keneen kenn ci ñun waru saaga morom waaye indiscipline képp ku ko jaay dañ la koy delloo. Hmm. te ñom ñoko fi te 100 jours yi opposition lañ on va assumer notre rôle position procureur na su ko neexee zéro bo bo bo bo droit am mom la constitution bi may mom la loi may mu autosaisiru mais tay procureur la fi nekkal du mais tay kon procureur bi Azoura di wax lu melni ci live plus de plus de 1000 personnes diko sont suivre fan la mais c'est ça mon problème c'est ça le paradoxe. mënoo ñoom si seen biir euh, une personne anormale. une personne anormale ça n'existe pas gis nga. Hmm. anormalité bi suñ suñ ko waree suñ koy def dañ ut yóbbu ko ca ou wala ñu yóbbu ko clinique ya ñu ay psychologue des ñi la psychopathologie la psychologie sociale ñu xool l'état psychique de la personne si il souffre d'une démence avancée wala s'il souffre des problèmes psychosomatiques Nous savons qu'il dafa nous ñu dem faji ko quand ku nga libre de ses actions di dox di wax lu ko neex di gis nañ fi photo ak Ousmane Sonko bu des def conférence de presse je ne sais pas <laughs> mais donc ñun mënuñ versions ay ay ay version qui des psychopathe la wala qui dafa wala wérul ñun ku a président de la république ce a man ça me fait mal. Ouais. parce que Dieu, quoi qu'il advienne m'a pas pas là... malgré tout je suis un opposant je suis un fort opposant mm. mais du ma nangu doomi adama di di saaga sama mbokk. dëgg la te Azoura dafa Dieu mm-hmm. parce que il est proche de son ou bien il est proche de je ne sais pas qui Nous sommes protéger C'est n'est pas normal Tu es ba jaxate tëj su amee sous Camara caméra, jëli Azoura Fall sinon nag Sénégal fii kenn ëpp fi wajur kuñ ëpp kenn ëpp fi ay mbokk fi dara jàmm ak salam mo jig Sénégal nañ dox ci jàmm ak salam bobu noonu waye laq dóor laq dom dor dom mo fi dul am. d'accord d'accord te mhm. trop c'est trop la liste nak yi intéressé ne ñom lañu japp ñun on sera là pour faire face. dafa am liste. effectivement parce que li suite logique là parce que Ameth Suzanne Camara njëkkoon def émission Sen TV nous ne yow yee topp ci ba hmm. ay publier donc donc je je me suis dit que c'est une suite logique personnellement, man mi personnellement ay message avons di may wax yow top ci ba yow ci Suzanne Camara. toi en personne man en personne. et man lu may wax dama koy mais je le dis et je le répète Ahmed Suzanne Kamara, waxu fi de te jomaay bi bu mu président yagul dara Azoura Fall dafa gën di koy et ça me fait mal lolu sax wax naa ci plateau fi ñewna fi émission ma leen wax né Ameth kii Azoura Fall waru toog tay kërëm dañ ko wara a parce que ça ça fait très mal. Mhm. Oh, nous on ne comprend plus quand on insulte djomai quand un président de Pastef insulte Diomaye les gens ne disent rien et quand on touche à son Sonko les gens commencent à la justice commence à se brandir man ça ça ça ça ça ça ça ça m'étonne man comprendre ma lu tax Azura Fall di dox di wéy. wala nañu indi ay carnet sanitaire yuy wane ne gaa secret de secret secret professionnel la mais nañuy justifier ne kii dafa am problème mental te ku am problème mental dañ koy internet. ku am problème mental dañ koy téye na bàyyi kon ay laajafam ñu téye confisquer léppam téye ko faj ko ba mu wér. fekkee loolu am.